شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه bisub 18 safar di màggalug Tuuba bis la boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ko santaaneel boppam ñu ko ciy santale yàlla ci li nga xam ne moom la ko defal jagleel ko ko ci ay may bis bi nag taalibe yi dañ koo fonk lool ba ciy def luñ mën ak luñ mënul loolee moo dal soxna Mominatou kebe ne at mu jot màggal gi dana ko dundal fii ci këram gi nga xam ne moo nekkee ci tuuba ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane muy sant bernde ak jaamu yàlla gu yaatu. إلى ولي المؤمنين وسكون وجاد كل بحمل وسكون إلى ولي المؤمنين وسكون ci bisub màggal gi bi ñu xëyee ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo di amalee doore nañ ko ak njàngum alxuraanul karim mu yaatu ci mbooloo mi nga xam ne ñëwoon nañ jàng fa lu toll ci juróom-ñeenti kaamilu alxuraanul karim boole ci ay salaatu na bi ay xasida waaye jàng fa limub yaasin boo xam ne xayma nañ ko ci téeméer ak juróom-benn fukk yu teg def ko àddiyey yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul waaye ñaanal ci mbooleem kilifaam yi nga xam ne dañoo jiitu ji yéene wàlle ci it mbooleem jullit yi nga xam ne dañoo jiitu ca barzaq li ñu ko amalee ci njàngum alxuraanul karim gi noonu it lañ ko amalee ci njàngum xasida ci diiru bis bi Jai Jai Jai Jai di bernde moo tax soxna Momy Kébé ci màggal gi fii ci këram lépp lu bis bi laaj rek ci wàllum bernde waajal na ko ngir ganam yi nga xam ni ànd nañoo ak moom santale Serigne Touba yàlla suñu borom di bernde yu yaatu yoo xam ne dakkul benn yoon ci diirub màggal gi yépp الرحمن إكراما كفى كلية الدرة وفيدي وكفى من التفت مدرتي والبلوى بفلمون ليقات الهلوى له سكوري إلى الجنات إليه وجهت هنا كتابا مع اليقين وفؤاد تابا نصرتني فإنك النسير مع الطيبين إنك البصير سمت قد أوصلتني في رمضان ما رد من

màggalu Touba dafa am dimension sociale dox mbokk jokk mbokk waaye bokk na ci it rataxal diggante kër diine yi loolee at mu jot dañ koy jëmmal fii ci kër soxna Mominatou kebe saa yu xëyee dana wër mboolem gan yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi saafonte ak ñoom ziar leen dalal leen bu baax a baax xamal leen ne kër gi seenu kër la. سهينا amal nañ fa it ay waxtaan yu am solo ngir fàttali mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo fa teewoon lenn ci dunduk Cheikhul Khadim ak liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko ba yàlla suñu boroom fay ko lii mu ko fayee. mbokk yi lislaam moo am tiitër bërki dem nag nee naa ci plateau bi murit yi moom dañoo defe ne ñoo moom sañ Tuubaa waaye Cheikhul Khadim du pour murit dong de Sëriñ Bamba pour jullit ñi la Cheikhul Khadim mbaaxam ak yërmandeem romb na sax jullit ñi mbaaxam ak yërmandeem moom sëriñ bi romb na sax mindee fii moom Cheikhul Khadim kon tey bis bii kenn ku ci nekk dafa war a jox loxo moroomam ne ko félicitation yor yor bii nag la sëriñ bi wax ni Cheikh Abdou Khadir Jeylaani gërëm na ma radi ani sibtuhu Jeylaani yor yor bi la ni Cheikh Ahmada Tidiane Chérif gërëm na ma radi ani sibtuhu Tidiane Cheikh Ahmada Tidiane gërëm na yor yor bii la wax ni xulafaawul arba gërëm nañ ma Omar Ousmane Alioune gërëm nañ ma yor yor bi la wax ni sama borom te bi badirin gërëm ma radiya anillahu wa bi rasuli bi ahli badirin wa atani suuli yoor yoor baa ngi nag sëñ tubaa nag moo ni sëñ tubaa moo ni ku ma bëgg mbaa sama mbégte di sa mbégte waaye ñëwal ci yoor-yoor bi ñëw leen santale ma yàlla. soxna Mouminatou kebe màggalu Touba bis la boo xam ni da ko fonk lool di ko waajal diirub at mi. te ni muy dundalee màggal gi ci kër gi lépp day delluwaat ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane di ñaanalaat Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalifa général des Mourides mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñu yàgg ànd ak moom màggaluk Cheikhul Khadim gile. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه